Il faut arrêter de m'envoyer des noms. Il faut... Je ne peux pas citer toute la salle. Pas possible. Il y a responsable responsables, et puis ça suffit j'ai dit pour que nous citions aussi xam leen ne les eh, la nous mais si je veux citer chaque individu ça n'a aucun sens donc malandé, vais dans may dalal stade pour au moins d'abord les capitales départementales puisque boo leen di xool sama politique dama tudd équité territoriale manam nañu jéem yemalé yemale waxu ñëpp ñooy yem mais nañu fexé ba lepp lu ñuy def ñu yaatal ko ba nga xamné ku ne dana am lu ci gis ci côté donc bu ñu nee département bu né bëgg nañ fa def maison de la jeunesse et de la citoyenneté compte c'est sur l'ensemble des 46 départements comme bima def Kaolack ko pour chaque département nañu def centre de formation professionnelle boo xam ne dana am ay filières yuy yokk comme koomu gox bi par exemple le sel bu ñuy def centre bi mën nañu boole métier yooyu métier du tourisme métier de la pêche de la foresterie etc. cetera am dans chaque chef-lieu de région ben ISEP institut supérieur d'enseignement professionnel là aussi curriculum la formation on adapté les besoins C'est comme ça qu'on développe un pays Mais on met le même format nous la même chose comme si on quatre 80% de littéraire pour tout le Sénégal ça n'a pas de sens comment on peut avancer avec ça On pas développer un pays avec ça il faut que nous devions les ruptures qu'il faut rupture qualitative pour que le Sénégal jëm kanam lu dafa équilibre mais ñëpp def la même chose après que jëlé liggéey après on va dire way liggéey amu fi dañu dem ci gal alors que réew mi liggéey ma pour encadrer tout ce budget là on a dit il faut le réorienter dans l'inclusion encore faudrait-il que nous ñi am accès à l'information ce qui ramène la question de la disponibilité des gouvernants disponibilité des gouvernants et leur capacité à communiquer avec le peuple wax li ñu li leen sant wax li ñu def fekk li ngay def sax ko expliquer nit ñi mais comment veux-tu que nit ñi di di di xam lo loy liggéey parce que loo def te nit ñi xamuñ ko ak loo deful ñoo comme si tu n'as rien fait tu fais et personne n'est au courant tu peux même pas expliquer def bi kay xanaa moo gën a wax bi au courant kuy campagne mo fi amone legui lan mo am ci courant gis nga tali ay kàmbala ay marigo nga don gis ci tali partout des routes des autoroutes y a tout cela y a un train tu etc. et cetera et cetera les universités et on n'est même pas capable d'aller défendre ça on laisse des gens qui n'ont aucune capacité aucune qualité qui ne comprennent rien du tout di wax ba bëgg ñu wër comme ça ci réew mi lolu loolu nag moom ci ñàkk fayda la bok parce que nit da ngay am fulla sa bop am fayda sa bop. waxtaan ak masla ku ne xam na ne ma nitu jàmm la mais nag am na loo xam ne du ko nangul doomu aadama du ko nangul kenn kenn kenn faut accepter qu'on nous marche sur les pieds comme ça qu'on veuille euh, ce pays-là le mettre sens dessus sens dessous au nom de quoi au nom de quoi on le ferait et on l'accepterait ceux qui pensent d'ailleurs et je les mets en garde qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Ils pensent que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qui n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, ce sera vous. Mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Maintenant, ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer, puis on verra bien. Quand même, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils pensent Ils vont détruire le pays comme ça. C'est ay wax rek ay fen sos jaxase Ils radio télé télé chaque jour radio télé mensonge internet c'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Il faut que les gens arrêtent un peu et qu'on s'organise pour sauver ce pays. En tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés. Il y a de l'eau partout. Les gens ont des difficultés. Le monde est ainsi fait. Il y a la guerre partout. Ils sont là, le chaos, avec des complicités. Mais filles, ça ne se passera pas ici au Sénégal. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tenter. J'ai vu des, des, escrocs là, cadres, cadre, casse-masse qui écrivent au président. Moi, je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Ben, il n'y cadre signé. Moi, je ne passe pas ce temps-là. Il faut respecter les gens. respecter les gens mais yéen yéen wara gëna am taxaway taxaway pour merci beaucoup pour la dette s'il vous plaît ci mbay mi je crois que Baboukar toujours Babou Il wax nga ci njàqare yi ngeen am ci wàllu campagne bi waaj a ubbi may dalal sa xel actuellement gouvernement a ngi structuré un financement ci wàllu woowu 40 ou 40 milliards qui vont être destinés aux OPS d'ici euh, le mois de décembre c'est arrivé pour nous faisons OPS yi nga la campagne Nous fixons fixer aussi le prix aux producteurs il faut souhaiter aussi que acteurs viennent yi jënd gerte parce que comme production bi day yok, mais gouvernement ne nga pas de mooy jënd le gouvernement s'il achète qu'est-ce qu'il va faire de la en faire de au Saloum ou quoi gerte Le gouvernement d'acheter l'arachide mais nous, on accompagne. On accompagne. Je suis allé en Chine obtenir que la Chine importe de la richesse. Ce n'était pas évident. Chinois, ils ont dit, ah oui, Chinois, Chinois. Mais il faut que nous le aussi. On voit que Gerte détruit. Nous avons 1 million, 1 million et demi, 1 million 700 tonnes. Mais qui va acheter ça Parce que notre consommation nationale, c'est autour de 350 000 tonnes. Tous les Gerte que vous voyez là, tous les... Tout ça, si tu réunis ça, c'est 350 000 tonnes avec les semences et tout. L'église de Nokedev. Donc, on a on a des Il y a à peu près les 100 000 tonnes environ. Avant, ils prenaient beaucoup plus. Ils peuvent aller à 150, 200 000 tonnes. Et après ça, donc maximum 600 000 tonnes. Ils ont 1 700 000 tonnes soo ko jaayul si biti loo koy def et puis mbéy dañ koy def pour jaay donc il faut ñu bàyyi faux débat yooyu waaw chinois yi ñëw nañ bu chinois yi ñëwul musiba am ci àll bi c'est vrai qu'il faut protéger les industriels parce que ñoom it am am nañu ay liggéeykat derrière mais béykat yi ñaata la ñu c'est des millions de personnes donc équilibre yooyu la état di xool pour vraiment am balance mais dinañu jël kem suñu kemtalay kàttan pour que campagne bi mën a jaar yoon te bu ñuy wax prix plancher mooy prix bi gën a bi nga xam ne kenn mënu ko jënd mu yées ku ko def yoon mun na dal si kaw waaye bu la neex nga jaay si kaw bu ñu ne prix bi deux cent quatre-vingts la par exemple ren xamaguma d'ailleurs luñ ci fixé te bi ñuy ñëw fanweer la ak juróom yoo xam ne d'ailleurs état bi moo doon joxe presque juróom-ñaar dërëm kilo bu ne moo kon changement am na kon bilan bi li imam wax li l'imam son discours est tellement clair secteur boo mënti jël la comparaison mais elle est claire elle est claire mais nit ñi duñu wax loolu ay foo débat ay bilan immatériel yooyu droit de l'homme quel droit de l'homme droit de l'homme dafa tax ngay def lu la neex di la neex rek def et puis ay droit de l'homme société civile ak non donc il faut que ñu dalal xelu béykat yi ak opérateurs yi si mesures yi gouvernement bi jël déjà 100 milliards la ñu dugal ren ci préparation campagne hivernale 100 milliards subvention engrais du matériel agricole etc. cetera ban de l'Ouest autant ci accompagnement Bécadi. donc aussi ko war tout le temps ça c'est le rôle du gouvernement c'est le rôle des partis de la coalition c'est le rôle des politiques de dire politique publique c'est le rôle aussi des directions et des services techniques pas sous l'angle politique ñoom c'est pas des politiques wala même bu politique ñoom service public la def mais war nañ mën expliquer nit politique publique yi nu mu do ko bindee pour que askan bi xam li def mais bu nekk làkk ay français bla bla yow français bi ngay moitié population bi dégg mais loolu mooy yaa ngi sànni sa wax même bu fekkee mooy suñu langue officielle bi ñuy bindee parce que voilà binduñu alphabet bi ne naa bu ñu yombaloon tey Sénégal romb na fii mais ku nekk andi ay xam yu compliqué bu ñu bindalee pulaar mënoo ko lire parce que c'est trop compliqué séeréer ko lire trop compliqué mënoon nañ jël lettre latin yi mu gaaw nga lire ni nga koy déggee mu jeex mais loolu j'ai demandé au ministre de l'éducation waa alphabétisation nañ ñu yombalal l'alphabet de nos langues nationales bu ñu bëggee ñu mën di bind suñu langue nationale dem bu Kenya ak Tanzanie ñoom dañuy bind seen soi amul problème boo Malaisie vous dañ la koy bindal yow mi gan boo da nga xam lan la pourquoi ñun suñu suñu langue yi mënuñ ko bind mu yomb il faut ñu wane ne ñun ay savant lañu def loo xam kenn mënu ko xam problème la loolu aussi mënoon nañu dimbale lu bare bare bare qui développement pour faire connaître suñu langue à l'école dans les universités etc. parce que aussi après 63 ans d'indépendance yow amoo sa langue bu nous jàngalee ah sa problème donc loolu dañ ko vrai débat C'est ça le vrai débat économique le vrai débat de société c'est pas nekk fii chaque jour sur des faux problèmes au quotidien alors bu loolu weesoo li ngeen wax ci tali le bâtiment de la route cœur Martin Diohine Toukar, waxal C'est séeréer ñu naan waxal Jam, Djam. ah waxal djam Thérèse c'est en cours c'est vrai que nous avons arrêté. arrêt bon PSD programme spécial de désenclavement Mais vous savez mais xam nga programme il dafa am ay procédures qui sont immuables faut que les procédures soient pare décaissement dañu de crédit relais mais après do mon dem tant que le pratiquement parce que toutes les contraintes sont levées maintenant ils ont démarré ça va être fait mais tam defal ci tali bu ko muñ ci ah? nous on était là à Fatick de joggé jaxaw da ngay taxaw poussière bu xonk ah? c'était pareil c'était pareil partout vous avez du goudron maintenant s'il y a des retards mais muñ len ko te ne dinañ ko def c'est le message aux politiques parce que bon, ñun on veut ça on veut ça c'est bien mais déjà on a fait ça et ça les li aussi on ne on peut pas tout faire en même temps même yalla bi ko def defu ko bu il ferait tous de nous des hommes heureux feebar du am ñak du am mais est-ce que def na kon nag résilience mooy nga xam ni yëf yi mu ngi ci mais quand même même lekk balaa ñu la koy tegal si ta table dinañu dem wuti di ah, wuti ko si marché bi togg xaar ba mu ba mu pare ñu doog la ko servir on veut tout comme ça le Sénégal tout waay waay casse rek comme ça il faut être raisonnable parfois et on oublie qu'on est un pays en développement aussi je pense qu'on peut tout faire aussi c'est une tare dans notre société, on doit combattre. boulot le